Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 31 octobre 2023 qui nga xamanteni moy Amadou Ba bok ci parti bobu ji di suudu moy passef bokon ci cadre Ousmane Sonko yoy ginnaw bi nga xamanteni ni def na li nga xamanteni moy émission Ndoumbelane ak Néné Aïcha ci Sen TV ba fa génne lañ ko arrêté sa section de recherche dembu ci altiné bi lañ ko déféré devant le procureur lu waral loolu nak muy ben confection bo xamanteni Amadou Ba def nako fofu ci section de recherche ginnaw biñ ko déféré altiné kii di Amadou Ba ak Mata Bintou Kan ñom dañuy def ben objet retour de parquet ginnaw biñ leen poursuivre pour divulgation d'information non rendue par l'autorité compétente de nature à nuire li nga défense nationale yi a été leen arrêté foofu section de recherche du gendarmerie Colobane qui cadre une enquête boo xamante diffuser une note boo l'administration administration pénitentiaire modon alerte alerté kii di ministre de la justice ci gravité bi nga xamanteni état de santé Ousmane Sonko mi ngi ci mais ginnaw ki nga xamanteni moy Amadou Ba bi mu jàkkaarloog enquêteur yi mi ngi ñuy rapporter que ñaari mise en cause yo xamanteni reconnaître na fay mais dafa plaider ben bonne foi dafa gis ni que ben document la bu doon circuler depuis plusieurs heures sur ay plusieurs sites internet ba nopi ci ak ay réseaux sociaux ainsi ci ben page Facebook bo xamanteni Juan Branco di avocat Ousmane Sonko bi concerné correspondance administration pénitentiaire bobu ci ministère de la justice qui dit Amadou Ba mi ngi rappeler ni que reprendre notre ci journal yi ba nopi dal di gis document bobu do nopi évoquer li nga xamanteni moy situation médicale Ousmane Sonko bu alarmante bi nga xamanteni ci document bobu amul won ben mention confidentielle wala ben secret dafa s'agir ni information interdite bo xam dañ ko diffuser mais mu partager ko en tant que mentor cabinet ki nga xamanteni moy président Ousmane Sonko bobu batay nak ben évidence la muy ko document bobu dafa am benn large diffusion diffusion bo xamanteni connaître nako ba nopi dal di présenter ben caractère privé batay suñu poursuivre li nga xamanteni moy mooy plaidoirie bi nga xamanteni responsable passé. bobu mi ngi koy ex passé bi mi ngi koy indiquer automatiquement néna supprimer na lepp lo xamanteni document la bi nga xamanteni ginnaw bi procureur de la République ordonné ñu ubbi ben information judiciaire ba nopi dal di confier affaire bi ki nga xamanteni moy section de recherche bu Colobane Amadou Ba mi ngi que amul ben limite bo xamanteni mën nako def mi ngi wo militants sympathisants ñi nga xamanteni ñu bayyi lepp lo xamanteni dafa jëm ci diffusion bien di partager wala di souligner li nga xamanteni de dafa jëm ci intention intellectuelle bo xamanteni ni malveillante la ginnaw bi ñu partager document bi nga xamanteni largement ci domaine public la nekk ki di Amadou Ba mi ngi indiqué aussi sans doute indir na benn erreur ci diffusion bi nga xamante ci passé bi plusieurs reprises ay bulletins médicaux Ousmane Sonko ci presse bi ak réseaux sociaux yi ndaxte dafa am ay alertes yo xamanteni introduction wala pratique parallèle daf comme par ailleurs mi ngi ciy yokk di patriotes yi dañ am benn communiqué Paul d'avocat bo xamanteni bu Ousmane Sonko la ba nopi dal di mentionner que koku amul won nullement intention pour porter plainte par rapport ak li nga xamanteni moy diffusion données personnelles amis ba nopi xamal na ci ga outre dafa outré ou vexé ou par li nga xamanteni moy commentaire commentaires yi nga xamanteni dafa semble intéresser li di diffusion au grand public de son état de santé pour alarmant bi nga Ousmane Sonko si ensemble bobu nak ak le yooyu le justifié wul tax mu partagé précaution ak particulier li nga xamanteni moy document en tout cas muy lo xamanteni dal ki di Amadou Ba ci cabinet Ousmane Sonko ba nopi bok ci leaderu parti bobu ñu di suñu muy Pastef loolu la joxé comme argument mais sénégalais la bëgg xam lan mo leen pousse ñu jël document Ousmane Sonko dossier de santé pour teg ko ginnaaw bi nga xamante ne maître Clédor do li mo ñëk génn pour wax ni que Ousmane Sonko état dafa grave ci 9 jours de grève de la faim Ousmane Sonko def na 72 jours de grève de la faim ñu dossier médical ba mu ko bayé ba bëgg ci delluwaat pour def pression à la justice pour genn loolu yëpp si système de manipulation la yoo xamante ni ñu bokk ci Ousmane Sonko dañ koy def souvent lu tax parce que Ousmane Sonko fi la taxaw né dañu sotti ci yérem benn liquide bëggoon ko ray yobuna affaire yi laboratoire mu taxaw point de presse ñu laaj ko génneel dossier médical bi néna du génnee dossier médical am bi mu nekkee euh, suma assistance docteur Babacar Niang dafa né duñu ñu dossier médical am kon ñom ci sen bop nanguñu ñu génnee dossier médical Ousmane Sonko parce que noonu dañuy violer li nga xamanteni moy vie privée mu don ay données à caractère personnel kon tay Amadou Ba en tant que juriste su taxawee bëgg wax li manam mi ngi wax lo xamanteni dafa safano deug waxtaan nañ ko wax te dee dañ ko jëloon tas ko ci réseaux sociaux yi tas ko ci presse bi uniquement pour faire pression pour wane ne que Ousmane Sonko état dafa grave wala nangam sangam pour profiter wu ci benn libération munu leen nax nit ñi manipuler ngeen. wax ngeen lu jeex def erreur jéggalu leen ngeen yem foofu mais une intention du woon C'est une intention c'était pour mettre en mal l'état du Sénégal ou bien la justice avec la population sénégalaise en montrant le dossier médical dossier médical boobu sont aussi yéen la concerné je crois que première réaction bi ngeen waron def ci sen mentor moy na arrêter grève de la faim pour retrouver toutes ses forces loolu ngeen ko wara wax mais pas se glorifier ak sen yenn chroniqueurs yoo xam teg ngeen ci plateau bi avant dossier médical bi di guen. Pap Alé Niang moo taxaw fi annoncé ni que jot na gis nako nangam sangam lu sax pap ko té pourtant mo doonoon sañ que génnewu fi dossier estampillé bu euh, armée lan moko ci fekk xam nga ko dafa wax rek gis nako état bi dafa grave mais a lañu jël en bouclier ngén tas ko ci réseaux sociaux jox ko sen membre ñu ko donc dans la vie il faut toujours assumer ñi di wax nak ay arrestation arbitraire la je crois que nous xamul yoon ku def yoon yoon du la ñi bok ci ak ñooñu ñëpp kenn woowu leen kan la ñu woo Amadou Ba kan la ñu woo kii di Fatima kan ñoom ñoo def li nga xamante ni yoon da koy tere kuy digle yoon nag da ngay def loo xamante ni yoon du ko yoon moom la santaane nga def ko ñoom nag ñu lu yoon santaane kon donc je crois que li nga xamante ni mooy arrestation Amadou Ba Fatima Kane képp ku taxaw ne arrestation arbitraire la wala injustice da wax li la neex ndaxte dossier médical kenn si yéen bugg leen ku ko jël posté ko bërki démb kii nga xamante ni mooy Bah Diakhaté nee na Bah Dia nga wax na ni que Pape Alé Niang na jël dossier na am na feebar am lu ko lu tax kon donc arrêtez de manipuler le peuple et dites-nous la vérité Lolo mooy dëgg muy ginnaaw li nga xamante qui dit Amadou Ba Bok ci parti bobu ñu gisul muy Pastef ak Fatima Kane arrêté nañ leen ba nopi jébbal leen procureur dembu ci lundi bi dañu bénéficier waat di retour de parquet.